say seddal na suñu xool sedd boo xam ne li gars yi naan bu fi yemoon sax neex waaye ñun xam nañu daf yem waaye nag da ngeen may may dèjà ma njëkk a félicité ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor liggéey bi teer ko depuis longtemps ndax bi ñuy door di liggéey ci Kaffrine defe naa suñu candidat bii di Sylla Gueye moo njëkk manifesté wu engagé wu jamono jooju dañ dem sax xuloo ndax page Facebook am nañ ci fi doon soog di saa ma ne ko tuuti loolu parce que ngeen bëgg ñu kër ci la personnalité. ñuy dem di dem di dem di dem ba tey ci cadre Yewwi Askan Wi ak intercoalition Yewwi Wallu ñu am lu toll nii ci Kaffrine ba nga xam ne Macky Sall bu gisee lii tey naaw. kon lu rëy la ñu am waaye nag li ma leen ko wax dafa am leneen ba tuuti dafa am loo xam ne dañuy door mooy Sénégal dafa am benn révolution xam ngeen li ñuy wax révolution moo commencé Sénégal révolution bi du ay bal yi tàkk du ay nit yi dóorante waaw léeg-léeg nga seetlu xam nga dafa mel ni mel ma tuuti rek sëñ bi mel ma tuuti s'il vous plaît mel ma tuuti sinon waxtaan bi du am solo suñu paree waxtaan bi nag ñu animé dégg ngeen dama ne dafa mel ni waa Kaffrine ak ni muy taw Kaffrine yëpp ak ni muy doon dëkku mbay yëpp dafa mel ni waa Kaffrine ñëwewuñu taw ndax gis naa ñu bëri ndaw lay dara balaa ñu ñetti tas. ne ngeen mag cinq minutes rek wax sama message su doon ñu déggante kon ma ñaan leen déglu rek dama ne dafa am lu commencé ci Sénégal ñu mën ko tuddee révolution révolution mooy la mooy lu ñu soppi ab société jëlee ko ci benn anam boo xam ne jagutoon yóbbu ko ci beneen anam boo xam ne bu jag la ci loolu la ñu nekk fi mu toll nii révolution bi soxlawul bal di tàkk soxlawul nit ñi di dóorante moom Macky Sall loolu la moo tax mu fi andi débat wu xeet débat wu ethnie débat wu diine débat wu terrorisme débat wu rébellion loolu yëpp lan la ci bëgg rek mooy di daal di ne mandat à vie laa waaye di ñu tombé ci piège révolution boobu li koy firndeel mooy lii ndax ñun ñii 2007 ñëw naa ñëw fii Kaffrine ñu ñëw fi campagne bi defe naa daa yaraaxoon na trop 2019 ñëw nañu Kaffrine campagne ñu tane woon tuuti 2022 ñëw nañ fi Kaffrine yëpp yëpp loolu wane na ni révolution bi ñu ngi ci kawam yeneen révolution boobu. du alal bu ñu leen jox yéen a jënd lu leen liggéey bi leen liggéey waaye xam ngeen ko andi mooy ci dem suñuy wax mooy taal xel yi wax leen dëgg wax leen ni ñu yoree réew mi ci lu bon wax leen ni fi doxul waaye proposé nañ ay solution loolu moo andi ni kon révolution boobu nag nga xam ne door na dafa am lu mu firndewoo ci élection bi ñu génn. mooy élection bi ñu génn ñoom dañ ñëwoon ñoom ñooy gagné fépp dañ ñëwoon 100 pour cent di dem ci élection bi ñoom ñu jëlee ci jënd joo xam ne ba tey jii ñoom di xataraay xam nga boo rombee nit ñoom sa xiir daal ko koy caw caw bu métti di nga daw ba bëpp ko ñu gis ko muy xataraay loolu moo leen dal waaye nag waaye nag loolu bi mu amee. dafa mel ni nag dafa am ay département ak ay région Sénégal yoo xam ne fi mu ne nii ñoom ñoo dugalagum 1-0 soo demee région Dakar te pourtant li mu am yëpp 90 pour cent li muy dugal ci koppar Dakar la ko dugal. foo def autorail foo def stade foo def arène foo def hôpitaux yi foo def lépp waaye daga googu mu def li mu def ba élection locale yi ñu jógee ñu tundi ko ba tundi cinq département la cinq département la ci benn Pikine bi mu ne moo fa gañe ne moo sàcc waaye nga nga dem fu mel ni Thiès nga xam ne bu mag la ñu tuba ci ville ba li ñu yëkkati commune yi danañ ko mel ni Mbacké nga xam ne mooy deuxième département bu gën a part Dakar ñu duma ko fa. danañ ko mel ni Casamance ko fa kon am na département yoo xam ne soo ci boole yeneen yi nga xam ne Diourbel duma nañ ko fa Kaolack gi duma nañ ko fa même suñu yenn yeneen liste opposition la kon lii ma lim ñëpp dugal nañu 1-0 kon lan moo lan moo des lan moo des dafa am ñoo xam ne dafa am ñoo xam ne ci Sénégal dañu war a def bu ñu waxtaan ndax nag ku góor gi daje góor gu ne war naa bañ ñu ne yow yaa fa nekk woon Kaffrine war naa bañ ñu ne li andi changement Sénégal li soppi Sénégal loxo Kaffrine néew foofu la koy andi nag mooy. gars yi dugaloon nañu 1-0. yaakaar naa nag même su ngeen dugalee fi mu ne nii gars yi dañuy am 2-1 ndax gars yi duñu bàyyi waaye 2-1 moo gën 2-0 kon li ci des mooy yéen waa Kaffrine daawati daal ndaw ñi ma gis. campagne yi xam na ne dama tuuti tuuti war naa am lu ëpp juróom ñett fukk wala juróom ñaar fukk ci at ay at léegi nii taxaw ci waxtaan gi ñuy waxtaan maa ngi gis sama yaay ngi jooy yaay Massa xam naa ne bëgg la rek su dee nag suñuy papa ñoo fi nekk xool ñu naaj xool ñu taw suñuy yaayoo fi nekk dama ne yéen ndaw ñi dafa am xalaatkat bu ne woon chaque génération doit prendre connaissance et conscience de sa mission et doit se donner les moyens de la remplir ou de la trahir. Est-ce que vous allez remplir votre mission ou est-ce que vous allez la trahir dama leen bëgg a wax yéen ndaw yi yàlla moo ñu tiim yàlla moo ñu tiim wallaahi a tax ñuy sonn yéen a tax ñuy sonn cofeel gi ñu am ci yéen yërmande gi ñu am ci yéen ak yeneen Sénégal bu gën ñun ñii ñu dundee fii màggee moo tax ñu jaral ñu suñu bakkan yi nag ngor ngor a koy moo tax ma ne leen xam ngeen problème Kaffrine xam nañ ko dem nañu élection locale ngeen def bu doy waar yàlla natt nañu woon dootu ci ne jaar gay nee moo newoon suñu candidat ba bi ñuy egg ci élection bi ba bi ñuy egg ci élection bi ñun jàppoon nañu dañuy gagné waaye lan la ñu xam ñoom xam nga fi ngeen di ngeen leen gis ci campagne fu ñu dem ñu yoo xool te kii dem ñu dàqale ko waaye dañuy xaar ba mu des dañu suba la élection ñu génn xaalis gi ñu sàcc yëpp xaalis gi ñu sàcc yëpp ñëw dañ leen roobee su ñëwee ci kilifa la ñuy njëkk a dem bu ñu paree ci kilifa yi commencé dajale jeunes yi ak jigéen ñi naan leen ñëw leen ñu financé leen ñëw leen ñu jox leen ñëw leen ñu. nañu dégloonte vous êtes une jeunesse consciente dix mille francs dix mille francs warul tax ngeen jaayal seen avenir pour cinq ans dix mille francs warul yàq ngeen jox koo xam ne mënul xamul bëggul jël kon lii solo sélection yi bu leen jàpp ni 2024 lañ ci jëlee Macky Sall le 31 juillet 2022 lañ ci jëlee Macky Sall naka lay demee mooy woote ni Yewwi Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi wàllu Macky Sall ak biir Dakar moo tax nag fii ñu toll nii si na wax na ko léegi engrais amul te jamono jooju indien yi ngi defar engrais fii ICS ngeen di dégg di producteur bi gën a màcc ci engrais buñ ko defaree ba pare engrais bi dinañ génn bitim réew waaye ñu koy jëndee fii suñu si nga koy dagg di ko jox ay tubaab ak ay naar ak ay chinois yéen su bi ngeen ko boo ko nag si yeneen alal yi nga xam ne ko sànq nañ ko moo tax ñu waay waay waay dañuy yëngu suñu bopp yéen ñi fi teew ñëpp taxaw ci suufu taw bi xam ngeen ni bu ngeen di dénkee réew mi mu defaru xam ngeen ni bu ngeen di dénkee réew mi mu defaru xam ngeen ni bu ngeen di dénkee réew mi alal réew mi ñu sàcc ñëpp yéen a ko ci réew mi nga dellu si réew mi xam ngeen ni suñu système bi nga xam ne moom ak lekkam ak mbokkam sàcc nañ ko génnee ko nga dellu si réew mi te ñaan sa réew mi ñuy li ñuy fexe ba kenn ku nekk jot ci wàllam wala di waataan daal dellu see ci réew mi dugg ci poche su Ousmane Sonko dugg ci poche su Moussa Gueye dugg ci poche su Cheikh Ndiagne dugg ci poche su Khalifa waaye dañ koy distribuer ak delloo si jéem aay yéen askan bi yéen a koy jot kon su ngeen bëggee ñu régler su ngeen buggee ñu régler problème bi définitivement yéen ndaw ñi vous avez la clé waaye xoolal bi rek su ngeen décider changement am ci réew mi mu am mu ngi jaar jarul génn xeex jarul génn rente mi ngi jaar ci seen carte directeur ñun ñëpp yor ngeen ko am ngeen carte directeur le 31 juillet. waxuma ngeen toog di naan attaaya naan nañu xaar ba ci kanam déedéet huit heures sept heures bu leen kenn jiitu ci dara ba bu ngeen botee ba pare na ngeen toog surveiller vote bi parce que ñoom ay sàcc lañu ku fa ñëw ku nga forcé bureau de vote jëflante koog moom gis ngeen li ma wax nii su ngeen ko defee six heures bu ñu tëjee bureau de vote yi commencé compter ñu ne Kaffrine tourné la doo Macky Sall ngeen ko defee ba jox ñu majorité à l' assemblée nationale def ngeen seen wàll ñu wax leen ni ñun nañ def suñu wàll moom mat sëkk la ca des nag mooy Macky Sall laa bëgg a envoyé un message à partir de Kaffrine bu yaakaar ni lii nga xam ne tàkk na ci Sénégal mën na koo fay ci ay complot ànd ak procureur nga xam ne moo gën a xëy di moo gën a sabati ci luy sabati ànd ak conseil constitutionnel am ànd ak Antoine Diome suñu yaakaare ni ba faagaagal projet bi nga xam ne moom la Yewwi Askan Wi porté ndax nañu seen bopp est-ce que di ngeen ko seetaan li mu def Khalifa Ababacar Sall def ko Karim Meïssa Wade nee na moom day bëre du am adversaire nee na 2024 fas yéenewul am adversaire est-ce que di ngeen ko nangu est-ce que ko nangu lu mu ko ko lu mu ko jaral moom dañu jaral lu ko ëpp kon foofu laay daane lay wax di leen gërëm di leen sant Moustapha Moussa Tine waroon waxtaan tuuti ci yéen ci programme bi mais situation bi moo ko waaye kontaan ci yéen donc di leen jox dig daje incha allah le